يا الله محمد صلى الله عليه وسلم واخنا نيو تي حديث بو خامتاني صحابي بيني وخ ابو هريره رضي الله عنه مو نيكو نيتالي حديث بي موغي تي بخاري تي نيميرو 35 35 يننت بي صلى الله عليه وسلم موني من يننت بي نيما ملك يننت يي ديس يننت ييب مبولم يننت يي بولين بولين من نيما ملك نيوم ني باي خيل ني يالا يوندينا 124 مليون انت مولاي وني يالا نيني ني تخي نيت ني باخ داكا ييتيل 124000 بروفيت لا يوندي waaye ci ñooñu dafa am la ñuy tuddee les messagers ñooñu 313 lañ ñi alquran tudd 25 lañ parmi cinq yi dafay am juróom mooy ulul azmi min ar mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe garaat parmi 5 yooyu nag yenent bi sallallahu alayhi mooy tànneef bi waaye yenent bi mu ne man ni ma mel ak yenent yi ñoom ñëpp ñu ne ko ah mu ne dafa mel ni benn waay bu doon tabax bâtiment mu tabax bâtiment bi ba mu rafet ba mu des benn partie boo xam ne dafa war a am benn brique bu fa war a nekk mais nekku ci mu ne nit ñi di wër batiment bi di yéemu ci ni mu rafetee waaye ku ñëw ba foofu ne ah batiment bi moo rafet bu du woon lii maanaam lii moo ko yàq dafa mel ni rek nit ki def même bu batiment nit ki def dara loo xamante ni lépp impact mais dafa am benn benn cat bu ci nekk rek xam nga ku ñëw danaan ay bu woon lii lii moo rafet bu woon nangam yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bâtiment boobu bañ ko tabaxee ba nga xamante ne dara desul lu dul parti boobu noonu moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw mu ne man maay parti boobu man maay kii rafetal message yu yi man may ki matal message yu kon yàlla may nañu chance ñu bokku ci xeetu koku mënoon nañu bokku ci xeetu yenent yàlla Musa ku bax la yenent yàlla Isa ku bax la Ibrahim Lut denga nga yenent yëpp ñu bax lañ yàlla buñu ñu boole woon ci seen xeet ñu gëm leen itam ay nitu aljana dañuy doon waye yàlla ci mbaxam mu yéexal ñu ba boole ñu ci xeetu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi wax alhamdullilah ci lolu waye ñoo ngi wax sallallahu alayka ya habibi ya rasulallah ñoo ngi sant yàlla di julli ci yenent bi ba ñu yàlla mayee ñu nekk cëru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk suñu cër alhamdulilah ala kulli xaal nañuy sax di julli ci yenent boobu sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla itam ci xéewal boobu noonu képp koo xam ne bëgg nga mën lire alquran wala nga mokkal alquran wala nga jàng sa diine d'une manière générale ñu ngi lay wax ne dañuy def ay cours en ligne yoo xamante ne depuis 4 ans presque ñoo ngi ci ànd ceeg équipe boo xam ne ñu qualifié lañ képp ku mu mën nga ñoo contacter ci numéro yii nii par WhatsApp ñuy éviter appel yi parce que day fekk ñuy def cour en général duñu ko mën a jël ñuy préciser aussi que ne cours yooyu noonu c'est payant